internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. seneinfo.net. internet yi ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene xibaar tey di ko xibaaru réew mi. comme ni nga koy defee ak bu jot démb ci première safar ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di xalif général des Mourides amal na nag ab message boo xam ne euh, fàttaliwaat na si li nga xam ne moom mooy solos màggal Touba bi nga xam ne ñu ngi koy euh, waajal le 18 safar wala tolloo 15 septembre 2022 gannaaw bi nga xam ne itam fàttali na solos màggal soosu ñaax na ñi nga xam ne. ñoom ñooy waa Touba wala itam képp koo xam ne eh, dina ñëw eh, ci eh, daje boobu xam ne daje bu am la nga xam ne ay millions ngi nit sax dañuy tase foofu la nañ semaine bi dinañu amalaat li xam ne moom mooy seen deuxième plan d'action maanaam grève boobu nga xam ne ñu ngi koy amal ñu ne nag loolu gannaaw bi nga xam ne nag daal amuñu. ak déggoo euh, ci nga xam ne kon euh, mooy euh, li ñuy ñaxtu te ñoom sax ñu jàpp direction générale ba daal day def loo xam ne jaarul yoon di ko teg seen kaw ñu ne kon semaine bi nañ amal boobule plan d'action ngir daal na nga xam ne ñoo koy laaj dañu jàpp ne seen àq ak seen yelleef la ñu mën ko respecté. gendarmerie nationale bu Sénégal démb nag euh, dañoo jàpp ab drogue lu toll ci cent vingt cinq kilogrammes euh, muy euh, chanvre dañu koy wax yamba la ca doy mooy fañ ko jàppee ci ab oto ambulance la ñu ne loolu mu ngi amee fële ca Kalifuru ci Kolda ba ñu nag daal jàppee nga xam ne mooy oto bi itam. Euh, teg nañ ko loxo yéen it fi nekk nii ubbi ci ab xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg ab bato boo xam ne waa Onicon ñoom ñoo ko joxe te sax mu doon mu yeboon lu toll ci vingt trois mille ci ay tonu bele boo xam ne mu ngi bàyyeekoo fële ca Ukraine ñu ne nag yegg na bésu tey bii fële bato boobu nag euh, kon waa Oni daal ñoo seetoon waxtaan ak ñi xam ne ñooy euh, waa. Kiev kon di Russie eh, ak it eh, eh, waa Ukraine kon daal gannaaw gannaaw waxtaan boo xam ne kon amal nañ ko ci diggante Ukraine Russie ak Nations Unies ak Turquie kon ci la bato boobu jóge woon foofule ci pooru Ukraine bii di bii de Pivnedi le 16 août bi weesoo kon bésu tey bii daal yegg na foofale ca Éthiopie nga xam ne sax ñu ne ñu bëri li nga xam ne mooy ak xiif daf leen a mama Mamady Doumbouya di soldat bi nga xam ne kon fa mu nekk nii moom moo jiite réewum euh, Guinée Conakry mu ne nag euh, fi mu nekk nii daal organisation bu Coupe d'Afrique des Nations bu 2025 nga xam ne kon seen dëkk boobu la di Mali ñoom ñoo ko war a amal ñu ne fi mu nekk nii nag loolu jël na ko daal def ko priorité nee na daal ak bépp dépense boo xam ne kon euh, dinañ ko ca def ci wàllum organisation ba loolu nag mu ngi am si jamono joo xam ne sax. am na ab délégation bu CAF boo xam ne kon euh, bésu tey jii dina dem foofale ca Guinée war amal daal ab tukki nemmeeku ngir xool kon nan la ñuy ak nan la waa dëkk ba di waajalee li nga xam ne moom mooy euh, Coupe euh, d'Afrique des Nations bu deux mille vingt cinq. xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy waa réew bi nga xam ne nag ñoom bésu tey bi daal dañoo xëy xamle ne. bu fekkee ne daal waa union européenne dañoo jël ay euh, bu fekkee ne waa union européenne kon dañoo suspendre ay visa euh, yu ay euh, seen i doom waa Russie ñu ne kon ñoom nag dinañ jël ay mesures yoo xam ne daal dinañu fayu bu fekkee boobu la dogal am na jëmale kon ci seen ay doom yu Russie loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Kremlin ñu ngi ko xamle ba tey bi leneen ñu dajee xibaar am seen teewlu dina jox daje ëllëg jaa ngeen